wala mi nga togoo wala mi nga si sommet yi mais tey bu di see mu ñemee wàcc di dugg ci terrain bi di wàcc di dem dafa fee def te ku def nag da koy wo da ngay wane li nga def te ku def askan bi askan wi gën dénk la lim la dénk am nga droit na loo def dangay wane ne lii laa def waxkat moom fii la ñuy wax mais diggante dakaar ba Kédougou opposition bi nañ dem noppalu ji te ñu gëm yàlla te l'opposition seeti métier je opposé wu mais opposition Sénégal rek laa gis opposition bu métier amuñu wax di wax ñu wax di manifester Elle d'accord Elle opposé wu d'accord na parti d'accord da nga def lépp mais nag liggéey ngay def ndu bu politique jeexee nga boobu dem liggéey bu buñ la gañee suba buñ demoon élection ñu gañe leen ginnaaw bu ñu demoon ñu gañe leen da ngay xam sa bopp jéem a uti liggéey mais opposition yuy des Sénégal yuy des dak Sénégal di wax ak ay terroriste je le dis di encaisser xaalisu terroriste bu nga lekk ala bu nga taal réew mi réew mi duñ ko nangu ku ko taal opposition na bu def lu ne weng wax lu ne weng dañ lay day wane lu ne weng lu wa nit war a def ñu def ko c'est ça nit nag un bon exemple fas yéene jiite réew da ngay wane un bon exemple waaye bu nga jiite réew ñu lay ci yenn ay détails boo ko mënoo jiite sa kër ndax kër gi tas na kër gu tas nag mënoo amee sa kër mënoo amee réew nañ noppalu ñu dem liggéey situation Kaolack bi nag Kaolack wax ji jeex na coow a des rek mais ñëpp xam nañ Kaolack ki et kii kan ak nit moom bu ñu la dénkee benn bë affaire defoo fi dara nga ñëw di laaj a ah, war ngaa rusa laaj dara ku ci mel ni Mariama sa je cite son nom war naa rusa taxaw ne dafa am lu mu bëgg Kaolack waaye xay li bu paree na dem noppalu ji dem retraite bu bëggee gàcce jël bu gudd jël bu gàtt moo gën bu gudd na muñ gëm yàlla wan ne manut dafa tële